jaajëf am na solo ala asan ñu dem nag euh, ci conseil constitutionnel mi nga xam ni euh, fa la gaa yi déposé mbir alaaji moo dina la wan léegi affiche bi journal bi ni mu ko defaree waaye nag euh, li jaaxal ñu bari mooy lii alaaji Sanjoogu Mbeng wax démb loolu la journal yëpp xëyee tey muy dafa mel dafa am tache noire alaaji noonu la ko tuddee woon démb mais journal moom bi ñu xëyee dafa mel dafa am cible bu ñu joxe candidat Ousmane Sonko mooy cible b maanaam candidat Ousmane Sonko ci la ñëpp focus bi loolu amee nag am ñu jàpp ne Ousmane daal ak jàllam ak nangam sàngam ci la avocat yi leeral nag daal ni lépp luy preuve ci fu ñu jaar lañ leen waroon jox te joxuñu leen ko dinañ ko yóbbaale jox ko conseil bi pour wane ni kat fii lañ jaar yëf yaa ngi nii maanaam daal Ousmane demul ak li candidat yi dem waaye daal dinañ yóbbaale preuve yi ñoom avocat yi. mais journal bi lan moo tax moom mu jël affiche yenn si candidat yi teg ko nii nii. waaw Modou wanaat ko ko mu ko dee mu laaj. Mm-hmm. Assane laaj journal journal bi. mais laaj journal bi lan moo tax mu def lii quoi ñii ñu tax mu tànn ñii. Déthié Khalifa mm. Karim euh, kii doomu Babacar. Anta euh, Ba. Kële kan la Déthié Fall ak Aïda borom kos bu bu bi kan la. kenn ke Idriss Seck la. ah Idriss Seck waaw mm. ak. Euh, Déthié Fall. ki ci kaw laa bëgg a wax ki ne ci wéccu. bu Ablaye Jonn bu Ablaye Jonn mm. Aïda ak Sonko. waaw mais lii dafay xëy na misaal rek. ah déet misaal bu fekkee mënoo see def ñi déposé ñëpp nga def seen tur boo ko mënul nga bañ see def ay candidat moo ko nana rafet. Ah. waaw. est-ce que du ñi ñoo déposé. déedéet ñii li nga lim démb ëpp na ñii. 28 waaw. da nga si def ñëpp seeni photo wala nga dindi ñëpp def def comme moom defu ko léegi ñëwal jàngatal a def si si kese yi nga def drapeau Sénégal nga leen réew maa ngi leen di diglu d'accord réew mi am nañ ci yéen yaakaar yéen a yore sànni tàccu gi hmm. ñii fi nekkoon kat benn weer leen fi dese mais am na ñeneen ñuy ñëw te ñooñu yéen leen war a tànn. d'accord kon muccug réew mi ëllëg ci seen loxo lay nekk. muccug réew mi ëllëg mi ngi ci yi ñii. waaw kon nañ ñu tànnal heure tey. waaw nee nañ ku mu fa hmm. vingt neuf voilà léegi kon nañ ñu tànnal ñoo xamante ni. jàpp nañu ni ñii bu ñu yoree réew mi réew mi dana jubbantiku rang yi dana jub waaye zéro heure nag soreetul kon nañu ñi dem bu alxames ñu wax ñu suñu candidat ñu tàmbali campagne. alxames dañ koy wax. waaw waaw. laay El Hadj Ba. <laughs> Assane conseil bi alxames day <laughs> <laughs> wax say wax daan laaj yow yaa joxe sa wax candidat yi. alxames. Ah. moom lañ koy wax. waaw ah. ban hmm? après. Hmm. Hmm? wax rek. te Assane lu wax boo ko wax mu ne après. alxames dinañ ko wax. alxames nag kon di nga dem buntu conseil ba. ah. conseil tapal lañ conseil bu ko wuti bu ñu waxee que ñun ñëpp que dañ koy publier rek. doo dem nga gis texte bi dañ koy publier dong di. waaye alxames la ñuy wax. waaw. mooy ginnaaw suba. waaw. ah mi ngi noonu kon Assane def naa réparation. <laughs> Alaaji waaw tey ci minuit daal bu ñu fa ku mu fa fekkul pare nga ci élection yi ñaareel bett Ousmane Sonko mi nga xam dem indi woon ko ba def ko muy tache noire journal yi ñoom it bi ñu xëy def nañ ko cible ci candidat yi. li ñu jàpp nit kani du bokk daal avocat yi neen préparé nañ ko muy ay lay yuñ fas yéene teg ci taabal ji kani daal fépp fu ñu demee ñu xaj ñu ko preuve yi wane ni def nañ ay effort a ngi nii xam journal yi moom parents yi dañuy def loo xam ne xam nga li Assane def ni dafa def benn remarque bu am solo hmm. te it mu nekk loo xam ni eh, jaaduwul hmm. maanaam boo demee bañ ne nàngami personne hmm. ngay def ay photo eh, li tax bu doon tey dafa jël supposons mu jëloon Ousmane Sonko jëloon euh, Karim Wade xalifa et cetera am na noo xam ne bu leen jëloon sax ñu wax waaw mais pourquoi. Anta Anta Babacar Ngom ci biir. Mmh. xam nga loolu. loolu rek mbir la. Mmh. Anta lu mu fi pesé gum ba tax. Mmh. ñu war koo def fii photo kan la. Anta Babacar Ngom. lan nga ne. ma ne lan la pesé gum ba tax ñu war a def photo am fii. Anta mii wër dëkk bi ñu koy casé. non waxuma dafa am ñoo xam ay politiciens yoo xam ni dañu def seen kii ba dem assemblée am na euh, Mamadou Lamine Diallo tekki wax nga ko fi te dem te dugaluñ ko fi. Euh, bugaan ko fi dugal. bugaan dugaluñ ko fi. dugaluñ fi keneen c'est que xam nga pareen saa yi dafa am yoo xamante ni bii. joxoñ na daal euh, jaaduwul journal bi maanaam. moom ci jëmmi boppam. Ah. moom ci jëmmi boppam am waru ne quand alto ah, bu fekkente ni dafa war a dugal photo ñëpp mën na fa ne. Mhm. d' accord naa mu ne fa dañu war a dugal photo tout le monde. Ah comme li Assane wax. waaw ah. yaa ngi dégg pass bi yëpp mënoon nañoo jël photo ñëpp def leen fa. Mhm. comprendre ok mais léegi bu fekkee ne dañu écarter ñoo xamante ni bi xam nañ leen ci langue politique seeni seen parti xam nañ leen. yàgg mhm. nañu fi politique. ñu éliminer leen ci mbir mi. daal di ko fay teg loolu dafa am leneen loo xamante ni bi moom lay. Euh, mais ndaw si wër na wër na àdduna bi. fu ne dem na fa àdduna bi mais c'est loolu rek dafa am benn joxoñ boo xamante ni dafa am mbir moo xamante ni bi moo tax xam nga parce que par exemple nga gis ñoo xamante da lay wóor ne mooy ba tey dañ lay wax rek ne la ci réew mi euh, xaalis mooy def lenn li loolu dafay dafay feeñ fii quoi waaw dafay feeñ léegi nag li nga wax nag son bu waaw candidat yi candidat yëpp nag moom hmm. boobu mooy bi nga xamante ni bii mooy mbir mi. non yaa ko waxoon dem journal yi reprendre. waaw loolu. yow li nga waxoon. waaw ñoom bi ñu ñëwee tey fa la ñu focus. waaw mais loolu mooy loolu mooy dëgg parce que loolu mooy li am xam nga <laughs> xam nga xam nga mbir mi moom. Hmm. maanaam tey ñëpp boo dama la wax démb ne la ñëpp Ousmane Sonko la ñuy xool. Hmm, hmm, te ñëpp problème Ousmane Sonko donc moo leen di teel ñii nekk fii yëpp ñoom ñoo ñu def seen photo yëpp problème Ousmane Sonko moo leen di teel. Ousmane Sonko mii ndax dana dem wala dem am na koo xam ne dinañ ko éliminer bu Ousmane ko jàllee dinañ ko éliminer mu kontaan parce que day xam ne élimination bi moo gën ci moom. Hmm. waaw parce que bés bu ñu nee Ousmane Sonko day dem moom waajutoon a dem maanaam dafay séentu nguur gu rot. mu hmm. xor maanaam am na ñoo xam ne foro leen yóbbu ci biir mbir mi. <laughs> fii dara du fa bàyyi fa waay foro leen yóbbu fa. illaay foro leen yóbbu. njeexaat. Hmm, waaw am na ñoo xam ne dañuy fortaatu dañoo sóobu nii rek. wóoluwuñ seen bilan. non non xam non mais xam nañ ni avec Ousmane Sonko ci élection du ñu dem tey jii Ousmane Sonko bu fekkoon ne candidature am teeloon naa leer. Hmm. di nga gis ñii ñëpp retiré ji ay fichier genn wàll yëpp du ñu retiré. ñu dem élection. waaw tey bu boobaa benn boo ko yaakaar sax doon nañ jéem a xool ñoom nan la ñuy def pour mën a def fas mais dañoo yaakaaroon naa ay dina dem ak du dem ak affaire yooyu léegi mbir ma tàbbi na nag ci loxo conseil constitutionnel. Hmm. bu am rendez-vous ak histoire. moom waaw tey jii conseil constitutionnel dafa am rendez-vous bu rëy ak histoire. ok maanaam lépp loo xamante ni def nañ ko. lu dut yoon am na pour réparer ko. Hmm. waaw delloowaat yoon gëddaam. Mm. parce que depuis quelque temps ci procès yi ni muy demee nit ñi ñu ngi yëg ni droit moom am na ñoo xamante ni bii fàttewuñ la taxoon ñu jàng ko. su boobaa consti euh, constitution naka constitutionnaliste yu mag yi du ñu dal ci kaw. nu ñu dalee ci kaw. ah candidat bii dafa waroon a jaar fii jaar fii jaar fii ah. fem fu mu jaar fu nekk gàntal nañ ko. Ah. mu ñëw yow nga dugal ko directement. Ah, ñu ko demal ñooñu ñoo nekk ci li nga xam ni du yoon. ñooñu lañ ñoo war a leeral liñ nekk lan la. ba parce que kii ba mu la tax ñu gàntal ko woo dañ ko war a gàntal parce que yoon moo ne hmm. dugal leen ko ci fichier yi yoon moo ne ñaari yoon la ko yoon wax d'accord yaa ngi dégg hmm. ne dugal leen ko seenaa wax ko hmm. ne dugal leen ko ci fichier yi kon ñoom ñi defut yoon ñoom ñoo tax ñoom waa wàccut yoon bi de waaw ñoom ñoo wàcc yoon kon conseil bi amul feneen fu mu jaar. fu dul fii fii zizi jaar lii mooy yoon. Ah. fii zizi jaar. farag wala wala jaar ah, yoon. maanaam yoon moo wax yoon moom boo ca nekkatul rek wàcc nga ko ki wàcc yoon. kan ah, te conseil moom xam naa ci yoon rek lañ jaar. yu conseil ci yoon lay jaar. waaw moo tax conseil constitutionnel. addina bi wax naa la ko mais ñoom defaguñ recours ba léegi naa la ko démb ne la addina bi ñoo koy déglu. waaw yaa ngi dégg ñeneen laa wax def nañu recours wala amagoo ci recours bu mu mën a doon wala dix jours yi ñoo xam ne am nañ ko pour def recours avocat état bi man leen xaw ma ci lu ñu ne après Modou nga nga nga nga bàyyi ma xel bala ñoo jeexal ndax avocat état bi def la ñu même kii bi hmm. parce que maanaam yoon li ñu wax te bu ñu fa demaatee cour suprême it cour suprême la mu leen def kii bi dafa def erreur bañ demee kii réparé erreur yi ba noppi attewaat lii loolu kay xam nga ni guddalab jël la rek hmm. waaw guddalab jël la rek sooy mais cour suprême ni ah cour suprême leen di xaar ba léegi non loolu amut sens amut kii boo boo gisee li ñuy kii ne amut sens xam nañ ni cour suprême ak yooyu yëpp xam nañ ni fi mu toll nii moom hmm. euh, jël jël la rek te jël boo xam ne da ngay ne da ngay dem làmb jee daanu boo mënee tegg hmm. arène ba moo moo gën d'accord jël boo xamante bi da ngay dem ni dama maa ngi dem daanu hmm. loolu kat koy def ñu lay toggal añ da ngay dem hmm. <laughs> lay toggal la ñu lay toggal añ préparé. sër la rajo. dëgg yàlla. saa bàyyi ba waay buñ bëri koy def ñu lay toggal añ. Ah. ay ja am na solo gërëm suñu gars yi seetaan ñëpp xam naa moo du dese nañ benn sujet mais dañuy bàyyi ba suba parce que waxtu wi jot na. bu subaa ñu ñëw ci kan bi nga xam ni incha allah euh, daal Baye Assane mii waxoon nañ leen ko te digg nañ leen ko le treize lay tàmbali le treize bi Baye Assane mii dina ñëw. toba may dem non xat na élection yi tax xam nga dafa tombé ak élection yi xat na Assane. léegi kon du xanaa dañ ko aj ba élection yi jàll. non non day day mais xat na la yow dafa am looy liggéey fii ci élection yi munoo dem yow it. élection yi mooy kon nu ma ko répété jii man damaa bëgg a dem. fii nii non def ko fii rek dina baax. waaw fi mu moom. priorité bi moom match bi Sénégalais yi am. ñun moom ñun ak africain yi dañoo wute ñun moom match bi ñu am dëgg-dëgg. mooy match. 25 février 25 février mooy sunu match. waaw bu ñu ko jaxasee après man daal bu ñu paree ci loolu daal may soog a dugg ci mbiru caaxaan yeeg. fooy ah football caaxaan. man mais fi mu doon man sunu match moom sooy moom man moom sama match moom. mooy le 25. na leen élection yi alaaji Modou bàyyi xel bu baax ci élection yi parce que lii. mbir la moo xam alaaji alaaji football bi dafa daaw ñoo football bi baax na lool jël nañ coupe bi alhamdulilah bii coupe nañ bàyyi keneen jël te ñu nekk. non non alaaji alaaji doo alaaji xam nga patriote. ah kay patriote ah kay. mais fi mu toll ba dama am beneen coupe. coupe la <laughs> mais coupe bi kay élection jàpp nañ ko. Ah, ah. mais léegi lu ci des. waaw ah, mais mais damay bañ gars yi déconnecté quoi il faut ñu connecté. mais final beeg kii bi lu ñu parce que bu ñu déconnecté rek mën nañoo réer quoi. final beeg kii bi lu ñu jëkk sama ngañ ci final. ak ay man fi mu toll nii. Hmm. coupe bii laa focus. focus kon yow bu ma la rapporté dama seetaan. non non ban seetaan ndax ma lay seetaan. seetaanuma eh. ay match. day